say maam daf fi kenn gënu kenn waaye nit nitte li ñu bokk tax foog ñu nekk benn léppi ñëpp lu ne ku ne nga ca kon réew mi ci nga bokk te liñ mën a séddoo mooy Sénégal kon moo ñu def fii mbook rafetul tur fi sa malit mi naan ñu mbeddum buur ay rafetul sànni sa médi ci canal bi naan ñu mbeddum buur nawet bi ngi ñëw yàlla ndox mi wàcc te bañ a ànd ak lor ñuy sàmm yoonu ndox mi ku ne war na la ñor ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan orange mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mëndëm maam yàlla may ñu ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan orange mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa ci mën dë onoon suug ni ci teel te giy pexe fegu jëm na wet jongir yee salaat réseau bi ndax kaaraanga gi nekk sa wet ñu ci région yëpp di def opération pré-hivernage débouché canal yi ndax na mi ba ñu tee otage jàppal ma jàpp dafay war kenn ku nekk ci ñun ñu bañ ci sotti mbalit mbaa suuf te bu sakkee mu ko muñ ñu dakkal branchement clandestin yi loolu jaaduwul muy garage wala marché ñu bañ ci tabax ci kaw régal yi kon ndiri ñun ñoo ko bokk e nan ko sàmm waay na ku ne sax ci li ko war mooy jàmmi ñëpp waay maam yàlla may ñun ndox ba muy wala ngaan ndox mi wal ci fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan onos mu ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu ci mënd maam yàlla may ñun ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan onance mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mëndal bu ñu jubee nawet li yëpp ci askan wi tiit onance a ngi def wareefam mais foog ñenn ñi nekk nit sekkar ñi kanaal yi defar ba mu baax ne ko ràpp tëj ci sàcc kubéer ki sotti ca balit mu indil ñu mënd lépp lëj kondiri ko fàtte mu def bouchon ndox mi génn salté def tata suñu buntu indil ñu problème mu santé ay na yowén jamono ngi dox ba nit ñi ëpp doole réseau bi mais ONAS am nay projet ngir yee salaat ñu méngoo maam yàlla may ñu ndox ba muy wala ngaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm a ñuy ñaan ONAS mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mën maam yàlla may ñu ndox ba mi walangaan mi ak ya la ñuy ñaan fegu jëm nawet ma tax ñu mucc ci Seudis DJ on the yàllaa ñu sàkk jaxale maam ga fi kenn gënul kenn waaye nit nitte li ñu bokk tax foog ñu nekk benn léppi ñëpp lu ne ku ne nga ca réew mi ci nga bokk te liñ mën a séddoo mooy Sénégal kon moo ñu def fii mbokk rafetul tur fi sa malit mi naan ñu mbeddum buur ay eh, rafetul sànni sa médi ci canal bi naan ñu mbeddum buur nawet bi ngi ñëw yàlla ndox mi wàcc te bañ a ànd ak lor ñuy sàmm yoonu ndox mi ku ne war na laa ñor am yàlla may ñu ndox ba a walangaan ndox mi wàcc fépp a ànd ak jàmm la ñuy ñaan orange mu ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd maam yàlla may ñu ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan orange mu ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd orange dugg na ca teel te gi pexe fegu jëm nawet jóg ngir yeesalaat réseau bi ndax kaaraange gi nekk sa wet ñu ngi ci région yëpp di def opération pré-hivernage débouché canal yi ndax mën mi ba ñu tee otage jàppal ma jàpp dafay war kenn ku nekk ci ñun ñu bañ ci sotti mbalit mbaa suuf te bu sakkee duñu ko muñ ñu dakkal branchement clandestin yi loolu jaaduwul muy garage wala marché ñu bañ ci tabax ci kaw régal yi kondiri ñun ñoo ko bokk e eh, nan ko sàmm waay na ku ne sax ci li ko war mooy jàmmi ñépp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 mbokki téléspectateurs yi mbokki internautes bat dëgg yi ñu ngi leen di nuyu gën gaa rafet nuyoo di nuyoo julit di baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw biñ sant yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ni moom dong moo yeeg cant julit ci sang-sang yi di rasulillahi sallallahu alayhi sallam tey jii ñëwaat nañ fii ci émission bu mag boobu ñuy wax pajum sunna pajum sunna ànd ak nag suñu ustaaz Cheikh Ibrahima Guèye fa tabaarakallaa nga xam ni mooy def pajum sunna ci roqiyatu ku dégg roq ya xam ni muy pajum na ku dégg am paj nag foo dégg paj xam ni ku feebar moo tax ñu naan paj wolof mooy wax faju te nag dañuy wax ni feebar faju kon ku feebar faaw nga faju mais nag ci yan nga fànn ngay fajoo am na ñu xam ne bu ñu feebaree hôpital lañuy ñuy dem ñu dem hôpital bari na ko xam ne yàlla dina dogal nga dem hôpital nga wér mais bari na koy dem hôpital ñu naan la gisuñu teew dara te teew ba léegi yaa ngi yëg jàngoo comme niko oustaz waxone kéro xamna dinañ ci développer ci kanam touti mais dañ koy bayyi mu nuyo pare oustaz assalamu alaykum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سليمان نقول نيو دي لزيار دي نيو ريومي أكوا بيتم ريو دي نيو كليف ريومي di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaan yàlla ñi tawat yal na yàlla leen wëral leen ñi am jafe-jafe ak yoon yàlla woyofal leen ñi am nekk ci ay situation sans borom yàlla yaatal seen mbir di am mbégte encore ci dellu siwaat ci seen seen euh, bi di euh, baatu dëgg hmm. di euh, am mbégte lool ci di waxtaan ak askan wi ci mbir yi nga xam ne mën na leen a amal seen njëriñu aduna waaye aussi tamit ak li nga xam ne mooy njëriñu alaxira di ñaan suñu borom mu lewal suñu làmmiñ ba mu ci dégg jën di njëriñ ñeel doomi aadama yi amiin jërëjëf oustaz macha allah bi nga waxee ni fii ci baatu dëgg te ku wax pajum sunna sa xel dem ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku lu mu wax dëgg la lu mu wax dëgg la kon bu yàlla dogalee ngay faj fajum sunna ñëw fii ci baatu dëgg li tubaab di wax ni kooku loolu moom du doon amalgam kon min ka ilayka la sotti ci ak def ci dëgg nga ñëw ci sunna sunna boo xam ne rasulullah koy ne mu loolu kooku lu mu wax dëgg la nga ñëw ci baatu dëgg mais oustaz keroog daanaka ci ñoon waxtaan muy cat. te cat bi ba léegi ñu bari sax dañu ni dañ continuer cat bi mais dafa mel ni cat daal feebaru réew mi ñëpp am cat xanaa ndax émission bi keroog man dama dañ maa woo woo ba mujj gi sa sa numéro sax dama ni Youssou beneen yoon nañuy def sa numéro ci plateau bi nit ñi ndax man sama téléphone bi keroog sonn damay dox ci mbedd yi sax. ñun ma oustaz nee na bi ñii cat bi na ne man de nag wax dëgg yàlla man du faj oustaz ay faj ñun ma waaye nag loolu taxul nga mucc mais oustaz xanaa réew mi ñëpp feebar feebarum cat. waaw euh, benn mbir sax man damay bëgg di ko leeral mooy li ñuy waxtaane hmm. yàlla xam na ne jubluwoon ci sànni mbaal xam na xam nga li sànni mbaal. xam naa sànni mbaal pour jàpp <laughs> pour jàpp waaw dama am dégg. <laughs> li ñuy waxtaane jubluwuñ ci sànni mbaal. mais ñun dañuy leeral. sunu mission mooy leeral la nit ñi ne leen lii mu ngi ci société bi danger yi mu ngi fi jafe-jafe yi mu ngi fi kuy dund jafe-jafe yi lii mooy conséquences yi buñ paree nag mën nañu présenter nit ñi ay solutions. même ci biir solution yi sax dañ lay orienter dañ lay wax ah defal attention de jullit nga jullit amul droit solutionner ay mbiram ci lépp. toujours rek gis nga dañuy delluwaat foofu. Hmm. mooy dañ la naan da bëgg solution kaay donc ne la nii nga mën a amee solution yi ci mu légal ci mu dagan hmm. loolu bokk ci li tax ñuy wax hmm. waxuñu ngir feeñ wala ngir siiw hmm. wala ngir nit ñi ñëw ñëw ci ñun propagande propagande yow taxuñu jóg déedéet waaye nag oustaz nag xam nga kuy dem ngénte laax taxu laa jóg waaw loolu dëgg la soo ko fekkee <laughs> jërëjëf <laughs> waaw boo ko fekkee am na solo mais taxuñoo jóg loolu dafa am <laughs> solo ba tax na cat comme li nga wax rek maanaam ñëpp ko amee waxoon naa la fekkee roon ne ndoxum siti la Hmm, cat waaw ñëpp ko am. ndoxum sida la ñii dañoo feeñ la rek ñii feeñ la wul. ok mais ndoxum sida la. Hmm. ndoxum sida mooy feebar bu ñëpp am. Hmm. ñii dañ koy feeñ la ba muy feeñ seen xar kanam yaag seen yaram yaag. waaw ñuy wokk toog lu ne ñu dugg ci. am ñoo xam ne day yàq seen baaraam ak. ñu ruusal seen karaw ak. ndoxum sida rek. am ñoo xam ne baaraamu sànqaleñ bi tuuti moo cay am. ok am ñoo xam ne feeñul sax ci seen yaram mais mu ngi ci biir. mu ngi ci biir cat noonu la mel. amut ku mu laalul ku tekki dara catu nan la ku xam dara man dara def dara satu nan la ku jëm dara mu soti catu nan la manam xam nga yow mëno def lu nit ñi dul wax ci yow déedéet kan mo am maqama def lu nit ñi dul wax yere sax boko ko solee bi sallallahu alaihi wasallam neena kullu dhi ni'matin mahsud hmm. neena kep ku tok ci ay xewal soxare nañ la ko hmm. kep ku nek ci dara di ci yëngu te am ño xamanteni ni buñ sañon nek sa place rek lolu chat la deug la day deug lolu chat la hmm kon cat moom mbir la moo xam ne ñëpp la laal ñëpp la dal am na ñu gën a garaaw la nag. ñu gën a garaawle cat ñu gën a garaawle am na ñoo xam ne moom seen mbir dafa garaaw lool sax. comme waaw masalan ñi nga xam ñetti mbir ñi nga xamante ne nii da di rey. Hmm? da leen di jàpp ba génn leen àdduna. cat dina yëg foofu day rey. cat ah. bokk na ci li gën a gaaw fatt nit. léeg-léeg nit feebar feebar bi boo amaale fatt fatt. quatre quatre-vingt pour cent ci feebaru fat yëpp ñaaree bu nekkul problème bi poumon cat da ciy bokk. fat fat day jek jek di fat jek jek sak sak noy di aju to wacc palpitation yooyu palpitation yu jéggi dayo ok ci ci bok ñun yor nañ ben garab go xamne ne bu la ciat dalé boko jëlé ala bu ko ciat dalé alin bu ko ciat dalé bu ko ciat dalé boko kuli ala kulli al ak ko manti don bo amé ciat di nga soxla ay minute bo lo ponkal ponkal ponkal buñ la japp do jog ak hmm? am dégguma nga waxaatal nga ni ma ne waaw yor nga garab yor nan garab go xamné hmm? bu soba yalla buñ la ko joxee doo ko hmm. lek do ko nan do ko sango do ko diwo hmm? dégg nga lu baax dégg naa la ko lek do ko nan do ko sango do ko diwo do ko tak ah. do ko rayo do ko suro wa kon nokoy def nak sax yooyu na faaw ay faut nga mboñ boy tank ni talek bam banku <laughs> dafa am fuñ koy tek seram hmm da am fuñ koy tek da am fuñ koy placer ci yow gis nga fofu ñukoy placer ci yow hmm 7 minutes lañ lay jappal chronomètre 7 minutes te 7 minutes yi sax ñu ñu bari mënu ko jël mënu attanuñ 7 minutes yi. ha 7 minutes yoy ñi gëna nekk jambar ñoo koy jël. 7 minutes 7 minutes. ben way da ñëw ci man ku siiw ci rew mi sax ko xamne ci affaire sport yoy lay yëngu. waaw. dafa ñëw ma wax ko ko way ne ma waaye oustaz loolu daa nekk dara. juroom ñaari minutes. ponkal la. waaw bu mu ma wax ko ko. ko bu ay lamagne ak ay bëtt yu soxor tegoo ci yow mi boko jëlé kaw kaawute. kaw wa kaw ngay def mu oustaz lii mënumaa ponkal la ab ab bërekat. bërekat la waaw ndax jàpp nañu poids yi. bi mu ñëwee ma jox ko mu ne ma man maay battre mu ne ma nit mas naa def 7 minutes ma ne ko nit masul def 7 minutes. mu ne ma man maay battre record. <laughs> naagu. ko 3 minutes la def. 3 minutes 3 minutes la def fi mu tëdd tëdd na fa 45 minutes mënta jóg. 45 minutes tudd na ko fa mënta jóg. man de xanaa mu ñëwee falaay fanaan ba. <laughs> <laughs> képp koo xam ne ay bët. mbaaw làmmeñ tege na ci yow mii. bëtub soxor wala bu la am bët soxor tege na ci yow boo ko jëlee mu réagir ci yow ci kàttanu yàlla am woo ko ak koo mënti doon. mais mais mais mais mais oustaz taxawal foofu tuuti oustaz li nga wax garaaw naa. bu baax. loo xam ne doo ko lekk. doo ko lekk doo ko naan doo ko takk doo ko diw am fu ñu koy teg rek. maanaam dañ dafa am koy teg ci yow. fu ñu ci yow rek. mais mais mais mais loolu da da koy dindi wala da koy muucu wala. diagnostic la. waaw ah, diagnostic pour ñu xam di ci yow. waaw. bu fekkee cata ngi ci yow ñu ñu xam ne la dara na ci yow après ñu xam nga man ci sama méthode hmm. bokkul ci sama méthode may wax nit lii dal na la amee nga lii bokkul ci li may dox te koy tiital waaw ah. man bu ma nee njabar nañ la rek day fekk ne téye naa ci lu dëgër këcc ba xam ne kii njabar nañ ko waaw te dama la koy prouvel dama lay wax ne lii ak lii ak lii ak lii ak lii maanaam balaa ma la koy defal masalan tey yor naa garab goo xam ne bu dee dañ laa njabar boobu su ma la ko tegee da ngay wàccu ah amul wérante kay baa nga dem toilette moom bàyyeeku bu baax. ah <laughs> maa la ko wax. sax li wax garaaw na de. <laughs> amoon noo man mel laa wax ba njabar nekk ceeb ñu ñu nga jël ko te doo wàcc. Moussa yow moo tax foofu sa sa moo tax yow foofu ku fa gis la yow jafe na. baa nga dem toilette. Oustaz yow nag yow Oustaz nañ taxaw fu ba la ñoo xam ne Oustaz yow tamit neexoo gis de <laughs> neexoo gis de parce que tamit bu fekkee tamit ñu am dafa am cas d'urgence amna ñu ñoo xam ni dañuy des fois guddi feebar mën na leen dab non non gars yi ma nekkal ñi ma nekkal comprendre nañ cas d'urgence yi cas d'urgence wala mag mag troisième âge yi bu ñu fa ñëwee dañuy arrêté rang bi jël leen ah kon du ñëppay rang déedéet du ñëppay rang jigéen wéru jigéen waaw jigéen noo jigéen bu wérul bu dee wér bi du ñàkk wér gi dafa sori waaw bu dee dafa sori kooku dafa sori kooku bu dee dafa romb ay 5 mois jëm kaw waaw du ko duñ ko dañ koy jël dañ koy jël du rang dañ koy jël bu dee handicapé. bu dee handicapé bu dee non non handicapé yooyu garaaw de da ngay toog xaar. parce que fee toog xaar météo am na façon handicap yoo xam ne mënu xaar. am na bu ñu xoolee rek. maanaam ki ne ci accueil bi bu ñëwee xool ne. kii mënut a xaar équipe bi daal xam nañ kii xam nañ urgence ràññee nañ la ràññee nañ voilà ràññee nañ urgence mais fële tàngul. am na ngelaw lu lay ëpp waaw waaw fermé wu na poussière du la sonal dara du la sonal man kay gis naa fa tawarkaal la <laughs> foofu moom foofu moom boo ñëwee nekk salle d'attente bi sax moo gën nga teel a dugg <laughs> tawarkaal gis ñëw naa fa <laughs> donc loolu la quoi moo tax cat day rey cat aussi dafay dafay damm màggaayu nit non kii euh, euh, comme maanaam développement nit gis nga màgg xam nga màgg day day day jeex fi mu ne yow sa màgg jeex na man mi waaw ah mënatoo màgg fi mu ne mënatoo njool fi mu na hmm. wala man pour naa sax déedéet ça peut maanaam gudd fan ah, ah, waaw waaye mënatoo. waaw màgg comprendre naa waaw. Ah, maanaam fii nañ c'est un mètre daal un mètre yi man mii màgg. Mhm. jeex na keneen ak keneen noonu la léegi xam nga màgg day dagg. Hmm. noonu la cat nag di def li nga xam ne mooy moy développement doomu aadama leg leg chat day fekk sa développement nako ko kapit ko wañi ko da koy hein sa développement chat man nako yexal man nako dag manam ni nga warona développer manam yow fi atum 2023 bi ni bo xolé fi nga commencé ak 2023 dalay lay 2023 bi warona na fekk ci yeneen mbir hmm chat ñëw couper ko dagg complètement ma joxe message fi amna na nit ñoo xamanteni ni manam manam tay bo ba waroon doon amon amon nañ profil nek ay nek nek président seen profil waaw waaw maanaam amoon nañ amoon nañ jaar-jaar gi amoon nañ xam-xam bi taxawaay amoon nañ taxawaay bi amoon nañ possibilité bi mm-hmm. maanaam condition yëpp réunir woon na pour ñu doon ko comme Ousmane Sonko rek waaw waaw cat ñu coupé mm, ñoo xam ne ci DG ci directeur général am ñoo xam ne ci liggéey même comme noonu ci li am na ko xam ne maanaam CVM déposé na ba ñu wax ko ñu ko xëy si yëpp ba mu def entretien ba def yëpp ba ñu xamal ne ko ku la gën a mérito poste bi amul cat ñëw jël jël jugé na ko kapit takk xanaa nga yow waxoon naa la fi xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nee cat dana fekk gëléem hmm. gëléem gis nga gëléem ni mu toll ni mu toll cat dana ko jàpp ba mu wàññeeku ba wàññeeku bañ ko mën bañ mën koo far dugal ci cib tëj ay waay cat waay xoola misaal boobu te rasulillahi moo ko sallallahu alayhi wa sallam lu mën a fekk gëléem ak ni mu toll mën koo réduire ba mën koo dugal ci gëléem tëj kan la mën a kan la jik kan la jik kan kenn waxoon naa leen fi ne li gën a garaaw njabar mooy cat. Hmm? tooke la buy dund ci yaram doomu aadama maanaam ku ko xamul rek moo koy ku ko xamul moo koy ñeme lu garaaw la lu doy waar la lu yéeme la lu am ay risque lu am ay danger te kenn mucc si nag li li fi nekk kay mooy nanu xam muslaa yi. Hmm. moo tax man fu may waxtaanee mbirum cat ci ay émission damay joxe ay muslaa gratuite te ku ci jàpp jarul nga may seet si. mais Oustaz Oustaz dafa nag am na muslaay yoo xam ne gratuite mais am na bi nga wax fii léegi bi nga xam ne boobu du gratuite li ngay teg nit ki nga xam ne mbër moom mu teg nga ko 3 minutes mu daanu. xam nga loolu du gratuite. xam nga waaw ci ci réseaux sociaux lañ nekk di wax. waaw te dafa am nit ñoo xamante ne nii dañoo bëgg lu yomb. Hmm, sama kalaas gi am na ñoo xam ne. Hmm. sama émission bii rek la ñuy di ko xaar. Hmm, pour nga wax ci lu yomb nga xam ne. di di déglu waaw. non seulement bu doon dañuy jël jëfandikoo toog noppi loolu amoo ci problème. ndax loolu moo tax may wax. mais dañ koy jël dem business ko. Ah, moo ay njabar ay fajkat yoo xam ne dañoo tayal duñ jàngi xam-xam. Hmm. ci sama classe gi la ñuy a li ngay wax ñu koy dajale. waaw ba pare di ko produire. ku fekk ni seen xam-xam la di ko mel ni ñoom seen xam-xam la fekk du seen xam-xam dañ koo déglu ci réseaux sociaux yi gis benn waaye di ko wax ñu jël ko dem liggéey ji ko te loolu dama ci am ay preuve yu dul jeex. Hmm. yu dul moo tax am na yoo xam ne daal yow. sur place rek noo doo wax lépp. ah eh, kenn kenn dem xare sax di wane sa ngànnaay yëpp doo wax lépp. yow daal li nga mën a laabiri nit ñi. Ah, mooy yi nga xam ni daanaka nit ku ko mën nga def. defar ko mais am na loo xam ni moom. soo bëggee mu deñ daar daar moom faaw nga def déplacement ak dérangement. am lu ñu tuddee fagaru am faju. faju yi may wax fii ay fagaru la. Hmm. ku ko jël ci nu yàlla yàlla mën na la musal ci cat waaye bu la cat dalee nag balay escanté moom da ngay Hmm, maanaam daal bala ngaa sànce faaw nga sangu. maa la ko wax. Hmm, faaw nga ñëw nga sangu moom si soog a soo yëre yi. Ah, boobu daal moom boobu kenn du ko may. da ñëw bu foofu. mais nag bu ñu demee ci muslaa yi peut-être balaa émission bee jeex dinañ dugg ci muslaa yi bu ñu ci muslaa yi dinaa leen jàngal ay mbir yoo xam ne ku ko def yàlla musal la ci cat. dégg bari ñëw ci muslaa yi mais oustaz est-ce am na doomu aadama boo xam ne moom man da ngay dégg yenn saa yi nit ñi man cat du ma jàpp parce que am na ñoo xam ne dañu koy bàkkoo ni man cat rek man moom bu dee man rek noppal leen man moom cat mënu ci man dara am na ñu bàkkoo loolu. xam nga ñun dañoo am habitude di euh, saraxe suñu bopp te duñ ko yëg. saraxe suñu bopp te duñ ko yëg. léegi léeg nga dégg koo xamante ne nii day def li muy def di ko fii di ko siiwal naan damay toroxal samay noon fekk mu ngi saam boppam mu ngi exposé boppam mu ngi alak boppam tey ko lislaam dafa ñëw digal ñu nëbbu. li man li ñak mëna fën ci ñun ñu nëbb ko loolu dafa bokku ci réussite dafa bokku ci li dimbali nga réussir yonente be ko wax alayhi wasallam ne istainu bi qada'i xawaayijikum bil kitman sen dimbali len seen dimbali len seen bop ci réussir hmm. ci di nëbbatu manam doomu adama lo gëna mëna mën say say bop rek hmm. mu man la gëna mëna réussiral hmm. parce que li nit ñi xamul ci yow duñ ko tuddu li nit ñi xamul ci yow duñ ko tudd te léegi dafa am làmmeñ dafa am ay doomi aadama yoo xam ne seen làmmeñ dafa ñuul làmmeñ bu ñuul comme ni ñu naan bët bu soxor noonu la ay nit mel am na nit ñoo xam ne làmmeñ bi daa ñuul maanaam lu mu tudd mu yàqu hmm. dee ay waykat la buñ la woyee nga faatu hmm. bu ñu woyee ab équipe ñu gañe ko hmm. bu ñu woyee ab mbër ñu daan ko bu ñu woyee ab politicien du gañe du du falu même politicien yi bu ñuy campagne yi dañuy wër ñi leen di woy de maa la ko wax borom làmmiñ mu ñuul bu la woyé do falu Yang dégg dali ya ngi dégg même bo démé ci xew yi ni ñuy tagaté ni du ñëppay taggé mu ci la dé hmm? am na ñoo xam buñ la taggé buñ la taggé rek nga jaxu ba buñ la taggé bu dañu taggé la <laughs> ma la ko wax buñ la taggé manam dafa am boromi làmmiñ yu ñuul dafa am mais noo koy xamee xam-xam la hmm, yo xam nga xàmme nga ñu borom làmmiñ ñuul wa am na borom làmmiñ ñu ñuul nañ ko dindi nak ci nit nit man na am làmmiñ mu ñuul té du xam mom Ah. am ñoo xam ne dañoo yor bët bu soxor seen bët yi luñ la ci mën a bëgg def mën nañ la koo def. mais oustaz bala ñu ñëw ci bët bi des nga gis nit ku naan man dama seetlu lu ma wax mu am wala lu ma wax nit mu daal ko. waaw day am ñoo xam ne dañuy bàkkoo loolu. te duñ ko xam moom laa la wax. dañu naan man moom damay dama ragal sama wax. dafa am damay wax rek mu am. loolu la ñu tuddee zabu. zabu waaw am na nit ñoo xam ne bu buñ la zaboo mu dal la. bu buñ zaboo kooku mu dal ko mu dal maanaam buñ la nee yal nga diw sàngam yal na accidenté. day day day accidenté Hmm? dafa am ay nit yu am ay lamme ñu ñuul bu ñu wax ci yow nañ wax lu baax bu bu ñu wax ci yow ñaanal ñu wax jamm mais bu hmm. ñu wax ci yow nga am problème. réew mi amna way kat buñ ñu fiy tooñee ku way nga faatu. hmm amna way kat buñ fiy toñe kum way nga faatu bu waye équipe nationale mu garé gaare du du du gagné gis nga non la amé ci lamme non la amé ci beut tamit lolu suñu borom wax noko sax ci alcorane hmm bo démé ci suratu qalam surat ni surat nur nuur yaakaar naa moo suurat numéro 31 waaw ci jeexantalu saar wa sunu borom tabaaraka wa taala dafa ne wa in yakaadu alladina kafaru la yuzliquunaka bi absaarihim lamma samicu dikra wa yaquluuna innahu la majnun maanaam sunu borom dafa ne subhaanahu wa taala xaw tuut yonent bi la doon waxal parce que aboo jahlin mi mi nekkoon kilifa yéefar yi dafa bëggoon rey yonent bi daa bëggoon yonent bi dee lu ne def na ko pexe mu ne def na ko mënut yonent bi dara mu xam ne nag waa askanu sàngam dañoo yor bët ay nitu bët lañ ñoom xamal nañ leen ko ay nitu bët lañ mu dem ci ñoom ne leen danoo bëgg ngeen xoolal ñu Muhammad mu dee. sallallahu alayhi wa sallam xool xool leen ba dañoo bëgg ngeen ñëw xullil ñu ko. Hmm. mu faatu ñu mucc ci moom. Euh, waa askan woowu ne leen waa jël leen kenn ci ñun rek kenn ci ñun rek mën na jël en charge loolu kenn ci ñun. <laughs> kenn ci ñoom kenn ci aboo jëlee ne leen déedéet. kenn doyut kenn doyut indi leen fukk. waaye aboo jëlee waaj. <laughs> indi leen fukk. ñu daal di jël fukki nit. aboo jëlee ne leen yonent bi fii lay jaar Mouhamed fii lay romb toog leen ngeen xool ko bu dikkee ngeen xool ko ñooñu armé wu ak seen bët fas yéene koo xool ngir mu dee. bët rek bët rek. Oh, bët yi bët yi dégg waaw bi muy romb yonent bi di romb suñu borom wàcc malaaka jibril mu dox diggante bëtu gaaña ak yonent bi alayhi salaam hmm. la gaaña di xool tooke bi bàyyi ko ci seeni bët ci xolub mbañeel di dal ci malaaka mi du àgg ci rasulillah alayhi salaam gilet pare-balles dafa lañ yonent bi suñu borom daal di dippe di loolu ci aaya alquran wa in yakadu alladina kafaru la yusliquunaka bi absarihim lamma samiu dhikra wa yaquluna innahu la majnun suñu borom ne yonent bi xaw tuut ci ci loo yëgul gaañ xaw laa buqi xoolal dana xaaya xaw laa buqi ci seen bët ya nga dal di faatu xaw tuut ñu def ko. man yàlla bu ma intervenir woon. Hmm. kon lu tax yàlla intervenir wàcce malaakam mu dox diggante bëtu gaaya hmm. ak yonente bi alayhi salaatu salaam mooy effectivement am na xaqiqa lor bu mën a bàyyikoo ci bëtu gaaña dal ci kaw rasulullah alayhi salaatu salaam maanaam nit ay loram ba yàlla mu jaroo ko mu wàcce yonent mu wàcce malaaka pour mu protéger si loolu ne am na bët yu soxor am na nit ñoo xam ne bu buñ lay xool nan la xoole jàmm hmm. mën nañ laa lor lii lépp dafa am te cat boo xam naa la ci émission bi jàll ñetti mbir a koy doxal. ñetti mbir mooy doxal cat. bët làmmiñ ak xol waaw bët làmmiñ ak xol. waaw mais mais mbër yi dem ci stade bi di simeeku noonu nga xam ni vingt mille personnes nga ñu dungeet futteeku sa lépp di feeñ mais ñooñu xanaa cat du leen jàpp. bañ a jàpp ñoom ñoo gën a fees la cat. mbër yi ñi ëpp problème ci réew mi ñoom ci lañ bokk. mbër. ñi ëpp bëriwul mbër muy dund ba dee te du deewaale ak feebar. bëriwul ah. mbër moo xam ne day bëre di bëre di bëre di bëre di bëre ba faatu dee te du deewaale ak feebar. Hmm? bëriwul. xoolal li ma la wax rek xoolal. dëgg la yaa ngi wax maa ngi yaa ngi wax mais maa ngi sama sama xel am na ci li muy taw ci ancien gloire yi waaw. même boo ko yëgut. waaw ay njabootam yi ko gën a jege mën ñoo xam ne seen bàyyi ngi souffrir feebar sàngam. mais li ma mais loolu ñoom est-ce que ce que nañu maanaam maanaam ñu teel a fàggu seen bopp ba nga xam ne loolu. bu mën na ne fàggu gi mën na ne. waaye duñ ko nangu ñoom. Hmm. parce que tey ku mel ni man mii. waaw wax yàlla man pajum sunna laay def. Hmm. man bu ma lay bu ma lay man maanaam man su ma lay engagé di la maanaam daray bokkaale moom du na ci yow. lépp lu dee jëm wàllum takkum téere waaw xar fa xuuf xaaw laar boggal deeg yooyu moom du galañ da koy teg nee bokkul ci samay mbir boo paree nag ma ne la léegi nag dëkkal nag man tawxiid laay liggéeyal kon yow képp kuy takk téere du ñëw ci yow déedéet wala boo ñëwee da nga koy maanaam condition la da koy nangoo dindi teg nee teg nee léegi nag la la loolu doon jëriñ ci kàttanu yàlla man dama la koy jëriñ plus loolu moo koy assuré Hmm. maa la ko wax dama la koy jëriñ plus maanaam bu ma la tekkiloowee say téere mbaa ma dagg say téere dala téere moom amul la njëriñ sax yaa ko gëm rek mais amul la hmm. njëriñ téere moom boggal de moom yi gars takk nii moom loolu sëñ bi ñun ñoo ko gëm rek nekk ay sénégalais di ay africain mais amul njëriñ te boo ma mayee boo mayee trois minutes ma démontrer leen téere moom amul njëriñ moom ñoom mbër yi koy takk ak ñëpp ci yem am na am na mbër mu ko bàyyi. waaw koy balaa doon jëm si. dafa am mbër moo xam dama jaar ci turam muy Modou Lo. ndaxte ñëpp xam nañu bi muy soog a tàmbali ci mu bëre. da doon takk ba ñi naan di wax naan day sekki. mais à un moment donné toog nañu yàgg ñu ñu takkatu ko ñu ni ñu naan Mamadou ñu naan Modou Lo léegi léegi afisul xuraan la dafa jàng aw xuraan dafa mokkal wàcc na léegi lu ñu waxal ko ko mm. mais bi mu ñëwaatee retour gis nañ ni bi arbitre ne péréb ñëw bi bi ñëw tàkku dara ba ñu bari dañoo découragé ci la gën a mën a dóor ci la ci gën a mën a daal ba nekk fii nag ba Pikine gii sax ñu dëkk ñun léegi daanaka mooy maire bi <laughs> maa ngi koy nuyu au ah, kon xam nga ko fa laa yem ah maa ngi koy fa laa yem maa ñu ngi lay nuyu au passage Oustaz <laughs> feeñ nga nag yaa ngi soog a feeñ eh, ah, Oustaz nag kon yow <laughs> non non non. xam nga ko ah di ko xam ne noo koy nuyoo. man sank ba léegi ah nuyoo Balla Gaye nuyoo Ama Baldé. non la nga nuyu Modou. Modou daal maa ngi koy nuyu di <laughs> ko siyaar. mais Oustaz jërëjëf léegi ñu dem ci léegi ñu dem ci paj mi. waaw quelle est la solution paj mi. paj mi paj solution pour mucc ci chat dina leen dina baxé auditeur yi wala mbokk internet yi ñu japp bu baax nak te limay waja wax ni ñu ngi sakku ci technicien bu ngi ko mënee dagg. Hmm. dagg partagé ko ñu dagg ko partagé ko. Youssou waaw. ma ne dagg partagé dagg ko partagé ko. gis naa ci suñ émission biy jàll ci commentaire yi su ma commencé développé. Hmm. benn waay mu ne waaye kii posé question na noppi ba oustaz pare. <laughs> Euh, su ma commencé wax. Euh. am na solo. walla euh, solution pour mucc si cat wala fagaru pour mucc si cat bi si jiitu mooy xasu xay. xasu xay. waaw xas bi xasum xay waaw. nu koy defe demal nga jënd benn takku xasu xay nga baxalee ko ak 3 litres ndox. Hmm. boo ko baxalee ak 3 litres ndox ndox mi day xonq cur. Hmm. garabu xay garab la boo xamante ne nii nekkul ci garab gi ci kaw ba ci suuf nekkul ci garab gi lu doomu aadama mën a dugal ci làmmiñam lu dul di ko yàbbiwaat. Hmm? maa la ko wax. ndax wex moo gën a weex tuunu ku na. xay maa la ko wax. nekkul ci garabu xay laa wax. Hmm? lu nit di jëfandikoo di ko naan mbaa di ko lekk. Hmm. amul luy tege saw làmmiñ lu dul di nga ko burusuwaat ngay def kay. moo tax nga ni xay boo yàbbee ne xay. maa la ko wax. Hmm? loolu benn garab xasu xay garabu xay bokk na ci garab yi gën a sedd ker boo toogee ci suufam. moom xay moom xay. maanaam ni mu wexee noonu la neexee ker boobu seddee ker gi dafa sedd guy moom xay. garab xasu garabu xay bokk na ci garab yi nga xam ne golo ya bokk ci yéeg. golo golo ak ni mën a yéeg yëpp. di xay bu xanaa mu bañ a gis geneen garab moom bu gisee geneen garab moom du yëg ci xay moom. sax parce que garab gu garab gu xay dafa nekk garab goo xamante ne nii maanaam benn daa mooy daa sori kaw ñaareel bi ci des tamit mooy léegi-léegi dafay am ay dëkkandoo yoo xamante ne nii deful ak golo nenn. sa hmm. golo xàmme na xay. te bëriwul lu ko pël di gortal tamit. moom xay moom xay bëri duñ ko gortal parce que jur gi duñ ko lekk. Hmm, kon war naa gudd fan. ko lekk non day gudd fan sauf que lépp lu ci nekk rek lu doomu aadama mën a jëfandikoo la ngir wér gu yaramam. mais lu muy lekk. moom xëy déedéet ci misaal rek loolu rek doy na beneen ba ci des mooy xasum xay boo ko amee xas mi. xas mi mooy garab yu bëri cees. Hmm. garabu cees yi. cees yi boo demee cees garab yooyu rek nga fay gis. xay waaw garab yooyu ne ci taat tali bi yëpp xay la. Hmm? waaw. mooy ci corniche boola. déedéet route nationale bi. route nationale bi ah. avant ngi dugg Thiès. booy duggu Thiès rek xam nga booy duggu Thiès am na garab yu bari yu ne noonu. ci boori tali bi. waaw xas xay la yooyu mooy xay loolu mooy xay. Ah. mais ñiy jaay fii ñiy jaay fii jaaykatu reen yeeg xas ah. yeeg yooyu. dañuy am xay laaj leen rek. ne leen xam nga am nga ko xay. Hmm. takk bi yaakaar na deux cent la wala trois cent cherut. Hmm. boo ko amee nga baxal ko ak trois litres boo ko baxalee day xonk cur soo paree nga rokk ci yeneen ñaari litres ndox. muy cinq nga jàng ci suuratul mulk ma mm-hmm. nga see mbaa nga joxe ñu jàngal ko mbaa nga dem ñu bindal la saar wi nga xooj ko ci ndox mi mm-hmm. yaa ngi dégg suuratul mulk mooy suurat tabaaraka allazi biyadihil mulk boo paree nga daal di koy séddale ci juróomi litre sangoo ko juróomi fan juróomi fan sangoo ko amul guddi amul bëccëg amul guddi amul bëccëg amul ci bis bi rek journée bi heure boo ko sango benn yoon par bés benn yoon par bés loolu boo ko ci kàttun yàlla à 80 pour nga lépp luy cat ba làmmeñ mbaa bët mbaa xolu iñaan bu nekkoon ci yow baamtu ko nga tolliwaat waaw dolliwaat ko bu juróom fan mat bu juróom fan mat ci kàttun yàlla saw yaram day set wicc ci cat ci cat bu teewoon say sidit da ngay tàntir muy bàyyi bu fekkoon da ngaa feebar di ta faju di teew wér da tàmbali gis ne yaa ngi avancé. Mhm. et cetera et lépp loolu la ca tere woon def da ngay commencé gis ne alhamdulilah mu ngi avancé. mais mais oustaz ma ñëw ci bi ngay teg nit ki ba pare. loolu mooy benn waaw. waaw ba ba nga ñëw bi ngay teg ba damay bañ fàtte ko. bi ngay teg nit ki nga xam ni dina tëdd 45 minutes du jóg nga xam ni daanaka mbër mi boobu mënu fexe ba baate record bi mais boobu su paree est-ce que am na solution. am na solution ngay. waaw am na solution. boobu solution yi boobu dama bëggoon bala ma koy fàtte. nga xam solution yi boo ko tegee nit ki. du ma si ñëw am na solution du ma si ñëw. mais mais ci saa si am nga solution. am na solution bu jógee day. bu bu jógee day bàyyi. maanaam du bàyyi ci saa si mais am na solution boo xamante ni moom lañ lay defal maanaam tey xam nga loolu diagnostic la bu ñu la diagnostiqué ba xam ne lii mu ngi ci yow. Hmm. après dañ traité maanaam amul danger. amul danger déedéet amul danger. lay traité dañ koy dindi a jaaxal boo. kaaw 45 minutes non di nga kaaw di nga sonn moom wax dëgg yàlla. parce que mbir mi yow maanaam da nga kaa yëgul rek mais noonu noonu la la doon kaawutee ci loo yëgul nag. Ah. ni mu la kaawutee noonu ci li nga yëg. maanaam ni mu la tëree doon nga ne las lasar la defoon say mbir da nga ko yëgul woon rek. ci ci ci ci baatin. Ah, ok ah, ni mu la kaawutee ci zaahir bi ba nga ba nga defe ne yow dara jàpp noonu la la escanté ci baatin nag te yëgoo ko. tey la kal la. te yëgoo ko woon yaa ngi doon dox te yëgoo ko. mu kaawutee bu yàgg. macha allah waaw comprendre léegi waaw comprendre na voilà. ñu dem ci ñaareel <laughs> sa yaay. njàppitu sa yaay sa waajur wu jigéen njàppitam. maanaam lu mu jàppee ba pare. nga sangoo ko. Ah? lu efficace la si faj manam ndox mi nga xam ni sa wajuru jigen su bude dee sa waajuru jigen mu ngi dundu ki la jur nak la wax waaw bude mu ngi dundu waaw da ngay dem ci mom bu sango ba nopi sango nga jël waaw bu sango rek parce que pour cër cëram yi set bu sango ba nopi nga jël pan jël satala nako ya jappal sotil ko ci loxe yi mu japp ñetti yoon ci bir pan bi nga jox ko mu ndiku yabbi ñandu yabbi ñetti yoon selmu ñetti yoon bayyi ci pan bi raxas loxo mi ba ci tonti ñetti yoon ak càmmoñ tank mu masa soti raxas tank ya ndeyjoor ak càmmoñ soti ndox momé nga dem nako club kalau sango hmm ndox mu lolu bokku na est ce que gënta efficace sa xaymi manam sa yaay japp ba pare nga jël ko nga xëppoo ko sango yuzu ma développer la kat gaay yi de yusu bi yaay booy yaay. yaay suñu yaay. mbëggeelu yaay ci doom mooy mbëggeel gi gën a dëggu ci àdduna. Mm-hmm. dëgg la waay waay loolu am waay. dëgg la yaay mooy mbëggeel goo xam ne benn intérêt la. wallaahi dëgg sa yaay noo mel mu bëgg la. bëgg la booy tux mu bëgg la. Mm. booy naan mu bëgg la booy màndi mu bëgg la. boo amalul kenn njëriñ. dëgg la ñooñ la gën a bëgg sax. waaw mu bëgg la. te bàyyi mi nga xam ne mooy sa bàyyi. Hmm. am na nooy mel mu bàyyi. dëgg la découragé bu yàgg. moo tax ñu ne bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi naan yaay ji sa doom ji du baax sa doom ma lay dëgg la yaay mooy koo xamante ne nii bu ñëpp boo feebaroon ba ñëpp découragé na doo wér moom du découragé billaahi fu mu dëgg fajkat ngab dem hmm. bu la ñëpp seexloo ba lay téye du ma sa découragé dëgg mooy yaay joo xamante ne nii mën nga koo ñàkkal njëriñ lool sax hmm. mu topp ci yow oh. lu mu am bokk ak ñàkk loo ñàkkul muñal la dëgg la yaay mooy koo xamante ne nii wóor na ñëpp ci àdduna ne moom mooy sa yaay. cey mais mbirum baay moom wóorut kenn. day dëgg ku dul yàlla. oh da ngay judd rek ñu ne la paa bi mooy sa baay nga nangu. allah akbar naan kaan baay baay baay mais fam la baayoo wóorut kenn. Oh. mais yaay moom ay nit ñoo taxaw seede ne kii moo la jur bi mu ëmbee fekk nañ bi mu lay wasin fekk nañ. Oh. kon mbirum yaay daa leer. dafa original moo tax même njabarkat yi boo demee si ñoom sa turu yaay rek. dañ lay laaj billaahi oh. wóoru leen noo tudd nga wax sa yaay ñu bind soxla wuñ bàyyi oh. doomu aadama buñ koy mystique ma sax siyam saya jaar ku xamul sa yaay mu la Saya ci mystique sa maa ngi lay révéler ay oh, maa ngi lay révéler yu doyo sa man sama yaram a ngi taw li ngay wax ni saya yalla xam nako yaay moo tax li gën ci loy saraxé kiko gëna mérito mo sa yaay hmm? ma la ko wax sa premier salaire bu sa yaay lekke ba ñaanal la la wax ah, de liggey bobé do ko waccu rudul da nga am bu ko gëna reuy ce premier salaire ce premier salaire bi ngay fayeeku ci liggey bu sayay yaay ba yek ne lek na ci ba xolam sedd ci ya ngi dégg nyak muku do ko ñak mukk rudul da nga am bu ko gëna kawé hmm ko wax yaay du caaxaan oh. lolu motax yaay xolam bi ni mel ci dom ji lii yëpp mën nañ laa soxore mën nañ laa iñaane ba mu des sa yaay. dëgg la. léegi-léegi nga gis ay baay sax yu iñaane seen i doom. waay dëgg la waay. ay baay yoo xam ne bëgguñu seen doom yi raw leen. Hmm. ba mu des yaay. yaay du la mos a iñaane mbaa mu lay soxore mukk ci mukk mën ngeen am nag ay problème ay wuute mais mukk mu soxore la. ma tax yàlla ni joxe sa yaay ba muy ñetti yoon. ñetti yoon jox sa baay benn. kookee waxuma la njàppitam. mais hmm. tufleem rek da lay faj. tufleem maa la ko wax bu la nee tuf rek loolu day faj. parce que dëgg la waaw fi mu ne dama wax la benn affaire bés boo amoon Enggak la jaaxal ci sa dund àdduna nga nga am problème bu la fees dell maanaam tëj ci ci tëj ci tëj ci tëj ci sa bopp bi nga lijjanti gauche jaar gauche jaar droite mu të fexeel looy defal sa yaay mu kontaan ci jamono bi mu kontaanee contentement bay giif nga raxas tànkam yi sa ngoog hmm? Israël nga xool. nga xool. waaw. li gën a nekk danger gën a garaaw posoñ mooy teg naqar sa waajur wu jigéen. waaw hmm? ah, loolu ay réalité la sëñ. la li gën a nekk danger. gën a nekk naq gën nekk risque mooy teg naqar sa waajur wu jigéen dara jaru ko donc kooku njàpp itam boo koy sangoo maanaam saafara la. Hmm? saafara la ngir yow saafara la maa la ko wax bët ak làmmiñ ak xolub iñaan dalay teggi ci kàttanu yàlla ustaas yow dafa mel ni saafara yi gën ci saafara yëpp wax nga ko waaw xam nga nag yow moom daanaka kon mën na ni yow sax yow dangaa dem ci ndar te ngar keppe ki parce que ñu ngi doon ay solution mais solution bu mag bi nga génne nag yow yii may wax nag moom laa la ne daf ci am ay nit ñoo xam nga man dama ko di ko baaxee nit ñi uh-huh. pour ñu def ko parce que nyep mënu ñoo ñëw ci man mën ta nekk tey ñëpp tey ñëpp it seen yaay fi dund jëd loolu ñëpp mënu ñoo ñëw ci man xam seen yaay dund moo tax ma joxe xay bi hmm. ko sa yaay dundul dama la jàpp ci xay bi dama jàpp ci xay bi waaw am nañu am possibilité tax am ñaar yëpp waaw am na xam am na xam sax seen yaay dund mais euh, seq ñoo moom tax ñu dem ñeme ko bay raxas nañ dem nañ dem loolu nañ dem nañ dem ëpp naa def de hmm. nañ dem nañ nañ saay Hmm. mais sa waajur wu góorum sa waajur wu jigéen mu ngi dund hmm. loolu soxna jaru ko hmm. euh, xarit jaru ko bàyyi jaru ko lëggéey jaru ko dara jaru ko ci kaw suuf maa la ko wax dara jaru ko wëlbatikul gaaw nga dem juboo ji ak sa yaay même bu fekkee ne sax ku doy waar ndax léeg-léeg yàlla nattu la ay yaay yu doy waar léeg-léeg sama borom nattoo la nga am ay yaay yu doy waar loolu nattu yàlla la ci nattu la ci yow di xool ndax dër nattu la muñoo ko yàlla rek te gérer maire bi te ñoom neex na ñoo muñal képp ku dund ba am 30 ans dootoo dund ak sa yaay 30 nga ni boo dundee ba am 30 ans dootoo dund ak maire bi 30 ans. Hmm, maanaam fekk maire bi dem. day dem. oh yàgg day dem bu demul it wax dëgg yàlla dootu la mën a indil benn problème. bu demul. da koy oh. demul dootu la mën a indil benn problème parce que boo demul fam ne. du la gis du xam ci loo ne. dëgg la dootul déplacé wu. dootul déplacé wu. kon neex naa oh, muñal. Oh, te beneen bi ci des tamit mooy képp koo xamante ne nii jàpp nga ne nekk ak sa yaay dafa naqari am na jamono yoo xamante ne hmm. ñëpp mënoon na laa bàyyi ba mu. wallaay kës ku fi am doom ju weex doom ju weex boo ko fi amee. Hmm. yaay rek même xale yii ñuy fob yow da ngay fob xale bi feek mu noppi. mais bu jooy yi baree rek. nga jox yaayam. nga jox yaayam gis nga boo amee sa soxna mu am mu am doom. doom ji amagul 3 mois nga fanaanoog soxna si. Hmm. wallahi di nga xamne jigeen jigéen ñi kenn du dehe amuñu moro kenn du ñom man sama soxna bu amé tout tank damay genn neeg bi damay teud ci salle ba. Hmm. pour ma nelaw mëna xey xëy fi liggéey. ba ndeysaan tellement que guddi gi yëpp tout tank bi day joy ndeysaan té joy xalé señ bi yalla def na ci lo xamanteni ni def ko ci joy mag fi ne magum jëm bu nekkon fi di joy da ngay rétane ah. amna nu muy démé nga rék waaye ki mo ñak fay da ngay rétane hmm. mais xalé hmm buy joy manam joy day melni day dugg sa yaram bi day am lum fay déranger. Hmm, te doo ci man dara. bu nopi wut do ne ci jamm deug la li gën a déranger moy joy xalé hmm yaay diko supporter. oh diko supporter ken du yaay. Hmm. kooku njàpp itam señ bi da lay faj. yow garab mag bangok jëlal bobu oustad garab mag bangok ah. xamna garab bi ñi mujjë mom tax xamna naa ni moom man sax dag ma touché fi mu nekk nii wax deug yalla mok internet commentaire yi mu mais dag ma dag ma dag ma dag maa laal xam ni man sax nekkatuma wax dëgg yàlla ci yaay ni mu mel te sama xel nekk nag ndeysaan ci ñi nga xam ni gisuñu seen yaay te tey jii ñu ngi naan bu ma gisoon sama yaay tey jii dinaa dem raxas tànkam. nga gis ko xam ni ndeysaan mi ngi nekk ak yaayam maanaam garab gaa ko jege mais ak ko sori. na profité. waaw mu war ci profité. na profité dafa am benn émission bu ma wax lii benn waaye daal dina daal dina oh. ndeysaan. yaa ci dem na parce que. Oh. amatul possibilité def ko. ndeysaan waaw. daal xam naa daal fi ñuy tëjee mooy ci li nga xam ne mooy solution yi solution yi daanaka indi ko ci yaay booboo ci gën a mag boobu moom daanaka kenn du ci waxaat ndax ñu bare bare bari daane nga leen ci bi nga tuddee seen yaay bi nga tuddee yaay yi mais ci yi nga xam ni solution yi nga xam ne yow moom nga yor. Mhm. ci ñi nga xam ni dañoo sori. maanaam ñu nekk bitim réew. Mhm, mhm. nga xam ni tey bëgg nañu jokkoo ak yow wala ñu nekk ñi nga xam ni sori nañu fin fond du monde lii ngay def mbajum sunna amu fa naka lañ mën a def yow ba jokkoo ak yow oustaz ba jot ba jot ci bagage yi. waaw ñun am nañ ay euh, xeeti traitement physique yoo xam ne nit ki bu déplacé woo ñëw mën nañ ko koo traiteel cat bi denc moom bu fekkee ne da koo jekku wala muy yàqule wala muy am ay jafeñ-jafeñ wala mu koy dund ci yaramam wala muy doon nit koo xam ne euh, cat mën na koo dal ndax li muy yëngu ci li muy lëggéey et cetera daal. ndax lu ma la wax rek képp ko am maanaam képp ku lépp lu ñëpp soxla yow nga jot si rek xamal ne loolu rek ca cat la. mais ku ñëw nga wax ku ñëw. ku ah, maanaam ñëw ku ñëw am nañu ay garab yoo xam ne maanaam bi isnillah mënees na la mënees na la see euh, traité. Hmm. am nañ ay produits yoo xam ne man maa ko préparé exposé ko ay produits. ay produits ay bouteilles la yoo xam ne dañ koo defar ba pare spécifiquement pour faj cat kooku nit ki da koy ñëw jël dem jëfandikoo. am nañ ay parfum yoo xam ne pour lool la. parfum parfum maanaam su forme de parfum la nii nii la war a toll rek yaa ngi dégg nit ki mën koo jëfandikoo. sa yaram ah, waaw. di ko di ko parfumé rek parfumé ko waaw mu mën laa musal ci cat. am na it ay xeeti ñaan yoo xam ne nit ki mën na ko saxoo mën koo musal ci cat incha allah comme ixlaas falak ak naas ñu xul wallaahu ahad xul bam falak ak xul bi rabbi naas boo xëy boo julee fajar jàng ko ñetti yoon bu ne ñetti yoon boo julee tàkkusaan jàng bu nekk ñetti yoon balaa ngay tëdd jàng bu nekk ñetti yoon loolu bokkul bu dëgër la ci mus ci wàllum cat. Hmm. faatixa juróom-ñaari yoon daf ko raay ko sa yaram kooku day mus la ci cat. te loolu bi ma ko bi ma ko fi waxee ci benn émission euh, ñi ko essayé yëpp dina ma wëlbatiku di ma waa di ma ba ci démb rek am koo xam ne démb rek nee na ma oustaz sama tànk bi dafa neewi woon. ma yaakaar nerf sciatique la ma dem fu ne ma dem fa hôpital bu ne ma dem fajkat bu ne ma dem fa nee bima yeme ci bi di def bàyyi te hoko ko di def nee na ma juróom-ñaari fan la ko def tànk bi res métit ba bàyyi hmm? ben xale bu jigéen dem woonam wax ma loolu macha allah te nii laa ko wax ne ngay tàllal sa loxo ni rek dal di ëf loxo yi ñetti yoon daal di jang faatiya ba mu jeex diw ko si yaram yëpp yëpp dal di koy baamtu juróom-ñaari yoon di def ngay ak hmm. saxal ko ci sa bop waaw lay dindi ci yow ci yalla mais mais mais est-ce que couple dina am cat. mais bien sûr dinañ catu couple dinañ catu couple. couple mën naa def benn benn benn mariage ci mariage bi noonu rek cat toppee leen foofu. Hmm? cat toppee leen fa. wala seen sëy bi ñu soxore leen ko ñaanal leen ko ñàkk leen ko yéene. yaa ngi dégg cat toppee leen foofu. couple dina am cat duñ juboo di xuloo rek di am ay jafeñ jafeñ couple dina am cat yaa ngi dégg duñ am doom. couple dina am cat buñ tëddee ñoom ñaar maanaam bëccëg bi nan mën na noo nekk ci jàmm ak yooyu yëpp mais bu dara dese bu bañ delloo bunt bi tëj rek problème yu tàmbale dund dund bànneex mukk ci àdduna mais loolu est-ce que xam naa dinañ ci ñëw est-ce que loolu du ay ay ay yooyu beneen émission beneen émission nañ ci ñëw waaw dana am cat yaa ngi dégg cat boo xamante ni day tax couple ba du gudd fan hmm. day tas xam nga ñetti mbir yii mooy ñetti mbir yi nga xamante ne nii aduna dafa soso and ak mom nit ñi diko dund te médecin mënuñ ci dara muy muy chat ak njabar ak jinne yi chat njabar jinne wa muy setané médecin mënu dara ci chat mënu dara ci jinne mënu ma dara ci njabar tamit mënu ci dara ci njabar parce que médecin bi scientifique la ñom 1 plus 1 égal 2 ñom faaw ñu am résultat ñom suma da déggé manam yow li tuba bi télé médecin bi dum télé yow lo fi yow boy sa fo yow la ñi réglé waaw yow ngeen réglé wa yow la ñi réglé fi médecin yi tu yam ñun yoy la ñi réglé té yi ci gëna graw nak moy mbir mi la dem ba duggalante moy ñi bo demone tay hôpital hôpital bi gën a bëri nit boo fa demoon yaa ngi dégg hmm. nga nekk fajkat bu yàlla wërsëgal nga am basura basura mooy nga am hmm. gis-gis hmm. yaa ngi dégg ñi ne ci hôpital bi yëpp hôpital bi yëpp quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp seen feebar seen jàngoro yi ñu faj ci hôpital bi maanaam ñett yi da ci bokkaale imma seytaane bokkaale ci mbaa cat bokkaale ci mbaa njabar bokkaale ci léeg-léeg nga gis ku ne ci hôpital di faju daaw ba ren du wér du avancé du jéggi du du seq jéego traitement bi doom fen naan damay faju muy gën a métti wala damay faju mais dara du dox du dox am nañu gënu am mais ñi nga xam ne gëmuñu faju yi am nañu xam ne gëmuñu ay lañu am nañu ko gëmul gëmuñu ko gëmul am problème rek bi sallallahu wasallam jabar dëgg la yonente jabar nañ ko mu jabar day jàppee dëgg la hmm. loolu ci ñëwee na gën leer xam nga am ay jabar hmm, waaw dinañ ci ñëw cat dëgg la day jàppee yonente bi nee na day rey hmm. day jàppee dëgg la jinne yi tamit seytaane kenn du leen weddi ndax ñu ngi nit hmm. du ko gis xale yu jigéen yu bari seenum njàng dagg na ndax jinne may mun a hmm. boobu nañ ci ñëw ci jinne ji far rab yeeg cor rab yeeg du jeex hmm. ak xàmb yi ay daanu rab ak daanu gàngeer yeeg yooyu yëpp ñu ngi ko fi gis ñuy jommeeka yooyu yëpp ñu ngi ko fiy gis loolu kenn du ko weddi en tout cas Afrique moom duñ ko weddi yaa dégg am na nag ñoo xam ne gëm gëmuñu ko am ñoo xam ne dañ ko seexlu ngir ñi ciy wax waaw am na ñoo xam ne ñi nekk ci réseaux sociaux yi di ci wax te duñ ko teg ci xam-xam di wax n'importe quoi moo tax far yàlla ñoom ñu seexluwaale mbir ma. oustaz bu ma la dé su ma la déggee bu baax dafa mel ni cat moo ñu wër ñu ñëpp parce que kër dina am cat. oto dina am cat. jabar day am cat jëkkër am cat. lépp ay am cat. loolu lépp la mën a jàpp kon ñun ñëpp ay nous sommes entourés de kat day cat. micro bi ngay wax mën na cat mën na ko jàpp day jàpp bureau jàpp oto jàpp kër lépp lay jàpp fi mu ne am na oto booy yor cat da koy téye saa boo ci yéegee yow mu paan keneen mën na koo daal mais yow boo ci yéeg muy paan. oustaz déedéet nga bañ a wax daal sama oto bi naa daal macha allah waxtaan bi neex na lool xam naa dañuy def tàggoo bul tàggoo ñu joxe sa numéro. Hmm. yow oustaz mi ngi nekk Kër Massar su ko defee nga nga nga jox nga jox gars yi seen numéro affiché na numéro bi Youssou affiché na numéro bi nga wax Kër Massar fa nga dëkkee ci Kër Massar. waaw bon man euh, maa ngi jaxaay côté Sénélec. jaxaay côté Sénélec. waaw. sénégalais mais yow booy recevoir sur rendez-vous ngay recevoir wala. waaw sur rendez-vous day woote woote ñu jox ko rendez-vous bu wootee jot assistant yi. Mhm. mu ne dama bëgg rendez-vous ak ñu jox ko rendez-vous après mu ñëw. Ah, ok bokkul ak rendez-vous boo xam ne pour faju la ak rendez boo xam ne pour gis la. du ñaar yëpp benn la. yëpp benn la benn la. dama lay la. bu dee pour faju la xalaas maanaam voilà dafa am jour yu jël góor ñi ak jur yu jël jigéen ñi mais loolu lépp boo wootee mën nga ci am ay renseignements yu leer ko incha allah. macha allah mbokk yi ñun ñëpp defe naa ni kontaan nañu ci oustaz Ibrahima Guèye fa tabarakallah ci pajum sunna ni mu ko indee tey jii gën nañ koo développé ndeysaan émission bi tey neex na lool lool mais ndakate gàllaaj gi ñu wëri yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mi ngi ci biir kër gi am na ñoo xam ne am nañ chance nekk ak moom muy seen waajur dégg nga ci oustaz ni ko ni mu ko développé macha allah kon su ko defee jox leen dig daje ba alxames bii di ñëw fii ci baatu dëgg fas ne nekk ak yéen ci dëgg fas yéene def ak yéen ci dëgg boole leen ak alaaji Ibrahima Gueye oustaz mu faj leen ci pajum sunna ci paj mi nga xam ni moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si sàgg boobu digle mbokk yi ñu leen jox digg daje ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.